affaire bi moo ko gisee moom lu am solo quoi ndax euh, moment yi nii euh, ñun su ku nekk yaa ngi toog sa famille quoi bon euh, yaa ngi ndogu en famille mais nag des fois day baax tamit ñu xalaat ñii couche yi nga xam ne tamit ñoo ngi si daara yi ñoo ngi si mbedd mi ñu ñëw ñu maanaam ñëw fekk si leen jàppale leen ci si maanaam ñu suñu xel dafa war a dal si ñoom tamit ñu xool ñoom si yan condition la ñuy la ñuy la ñuy nekkee di ndogu quoi tey nag j'étais je très très honoré bu ma ñëwee fii nag bon buñ ma invité si affaire bi quoi vraiment content naa quoi content na. te depuis euh, début koor ba léegi ñu ngi def ay ndogu de solidarité donc euh, ngeen seetloo def ñu ko si mbedd bi comme ni ko ñeneen ñi defee charité ni ko ñeneen ñi defee baax na mais ñun dañu ñëw si daara ji li tax choix daara bi. parce que dañ jàpp ni peut-être xale yi donc euh, dañ ko dañ ko dañ ko soxla dañ nekk couche boo xamante ni couche bu vulnérable et tout bu population bi war a bàyyi xel donc moom mooy moom moo waral suwa daara yi. xale yi boo donc heure bi nga xamante ni moom la yeneen xale nekk si mbenn bi di taxawaalu donc da ngay ñëw fekk leen si biir daara bi ñuy jàng ñoom lu mu naaj naaj naaj naaj 9h30 au plus tard donc boo fi ñëwee da ngay fekk xale yëpp toog di jàng donc loolu bokk na si li nga xamante ni moom moo tax euh, ñu tàmm ñu tànn daara bi.